asalaamaaleykum internetu Khass TV maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax a baax jox leen seen wàccuwaay euh, kontaan ci jano yéen ñi nga xam ne saa su ne yéenay bëgg euh, site bu mag bi nga xam ne mooy euh, Khass TV di ziyaar bu baax a baax ajaratu mira mi nga xam ne saa su ma xëyee moom lay àndal ci terrain bi waaye tamit di ziyaar bu baax a baax sama caméraman ki nga xamante ni mooy Ibrahima Bari di ko jaajëfal bu baax a baax di wax internet yi nag tey ñu ngi fi nga xamante ni mooy marché Gueule Tapée nekkee fi nga xamante ni moo di kaas ba li ñuy waxtaanee tey mooy ci lu jëm ci wàllu tamxarit ndax ku ne tamxarit ne cere te ku ne cere ne mooñ te ku ne mooñ ni lay tay ba mu suus daal di jox ñi nga xamante ni mooy ñooy say mbokk tey nag loolu lañ fas yéene waxtaane ndax bu njëkkaan dañ daan gis ne jigéen ñi dañ daan euh, dañ daan sebet daal di tay mooñ defar ba mu baax daal di jox ñi nga xamante ni ñoo di dëkkandoo ak mbokk yi waaye léegi lu ñu mel mu mel ni loolu dafa raaf léegi ma fas yéene see waxtaan ak sama yaay ji nga xamante ni ñu ko fekk ci marché bi moom it muy jaay ay cere te da weer ba mu woo ma laaj ko tamit as ce que hygiène bi nga xamante ni euh, moo ci war ñu ngi koy matale euh, yaay maa ngi lay ziar bu baax a baax bàyyi la nga nuyoog internet xaas yal na yàlla nangu siyaar na yàlla nangu siyaar nañ yàlla jàppale duggee ko bisimilaay jeexle ko alhamdulilahi rabbil alamina niñ ko defee nii na yàlla may ñëpp ba ñu fekkee waat ko déwén ñu defee waat ko nii ci kaw wér ak wérle mbas bi yàlla génne ko ci àddina ba ñëpp dellu ci seen sago maa ngi leen di fay bu baax kaas ba tey li ñuy waxtaane mooy ci lu jëm ci wàllub cere ñu ngi gis ni yow it say cere da nga koo tey ba mu suus daal di weer ba mu wow di ko jaay ci marché bi est que mën naa xam tey ji prix yi fan la toll waaw mën nga xam prix bi fan la tool ndax fiñ toll nii dafa xaw a yéeg li tax mu xaw a yéeg nag ci mbirum dugub bi la bi événement bi amul ñun 700 lañ doon jaaye ndax dugub moo amatul dugub dugub bu demee ba kilo di jar ay 400 450 looloo tax cere ji xaw a yéeg tey jii ñu ngi jaayee 800 waaw ndax liggéey cere tam dafa metti metti na metti waay boo xam ne boo ko nanguwul doo ko mën bari na ñu ci duggan rek waaye bokkeewul ñi nga xam ne dañoo juddu fekk ko fi dugg fi ak ñi nga xam ne dañoo dégg riirement bi roy ko mënul bokk mënul boo bokk mënul nuroo bokkeewul ñun suñu cere dañ koy liggéey ba mu baax gis nga ko nii man damay liggéey sama cere ba mu baax bëgguma mu am suuf samay client ku fiy jënd rek xam na ko lii ku ko gis ci télé dina dina ma xàmmee dina xam ne kële moo may jaay cere waaw. waaye dinaa sama stock di xaar client yi di xaar client yi ñëw su ñëwee rek ma dal leen jaay cere. Euh, si léegi jigéen ñi dañu tàmm cere joo xamante ne daf dañ ko weer ba mu wow cere ju waw ji mu mel ni jigéen ñi mooñatuñu euh, yow ban gis-gis am ci ah xam nga cere ji moom nof dafa am noflaay ndax soo bala boo seetee li ngay mooñ tay ko loolu na jël temps. te bii da ngay ñëw rek kaas dal di tey nga am sa cere mu rafet nga def sa tamxarit bu neex. xanaa sàggan ndax ñun buñ toppee li maam waxoon rek wér gi day yokk ñun bi ñuy nekk xale dañ daan gis bu tamxarit euh, commencé suñu maam yi dañuy dem jënd dugub ñëw jox ñu ñu soq ci kër gi ñun ñëpp di xëccoo soq bi bu ñu paree foofu lay sibet njëkkante machine bi. su tay amee pare ñu tey cere bi ku nekk naan maam may ma dagg may ma wogg may ma layit te loolu yëpp ay baax baax la mbokki jigéen ñi nañ delluwaat cosaan di tey cere yi ci biir kër gi di ko sellal neew ma nag sa sey baaxul ndax boo nee baaxul dafa fekk ni danga nga caa am lu la wóor waaye nag mën nga ni nan dellu cosaan ndax sunuy maam dañ ñu fee bàyyil kuur a gën bàyyil ñu dëbb bàyyil ñu machine bàyyil ñu wal waaye lu toll ni tey mercredi ñu naan samdi la tamxarit xarit marché bi wéet machine bi walul kenn mooñul gisoo fu muy xeeñ dëgg yàlla sentiruñ ko daan nañ ko gën a sentir ndax heure bi da nga daan fekk machine yi wal ba fii di rang ba fii ñuy njëkkante wal xuloo bi werante bi waaye yooyu yëpp amatul jigéen ñi nañ góorlu di sellal togg gi delluwaat cosaan di soq di wal di mooñ di tey wan xale yu ndaw yi nga xam ne ñoo fi ne ëllëg ndax ñun kat xëy na ñun ay mag lañ duñu ay mag waaye nag jur nañ ay doom yoo xam ne war nañ leen tette ngir ëllëg cere nag ñu gën a def attention tamit ci limité bi bàyyi épices yu bari yi wàññi waaw rek def ko comme niñ ko daan defee teel ko taal togg ko togg gu neex dëbb sa nokkas ba mu saf nga def ci biir baaral ko ba mu ñor nga teel ko yekk jox ko sa njaboot ak mag mi nga yor ci kër gi mu teel a reer jàmm ni ñooy man man dama xalaat ni man ku dekk bi di defar cere moom nag lu baax ba xalaat bu baax nga am yaa ngi may dégg xam nga ñoom seen nooflaay bu njëkk ñun nañ daan rooti di soq loolu yëpp jamono avancé na kenn defatul dara waaye comme yéen seen jamono loolu la tolloon man ngeen dem jëndi cere waaye nag ngeen jënd ko nga xamante ni tayalul te li muy def xam na ko gis nga lii bu ma bàyyi woon sax xam naa li may def su guddi guddi ma defar ko yaa ngi may dégg loolu la amee njëriñ cere kër gu mu nekk xiif du fa ne métti méttitu biir du fa fanaan xam nga loolu yëpp yéen xamu leen te ñun xam nañ ko waa loolu la. waaw njaay mi de wax dëgg maa ngi koy jaay maa ngi ciy sant suñu borom bu baax a baax waaw ndax cere moom xam nga ne moo baaxoo tamxarat waaw cere moom la baaxoo tam xarat maam Adama ak Awa ba léegi waaw kon cere mooy dëgg ndax mooy cosaan mooy suñu aada. waaw kon moom la ñu war di togg ci tamxarat di ko jëfandikoo waaw ndax cere moom moo mooy suñu lépp mooy suñu wérgu yaram dugub ngay ngay ngay lekk mu mu lay jox wérgu yaram waaw ba ñu bàyyee laaxak yi muy àndal ba léegi ak cere bañ ko oyofalee ba tey ci la yeneen yi yëpp di ñu dal waaye bu dee cere moom ci la ñu dëkk ak laax ak yooyu li suñ maam yi doon jëfandikoo kon moom masala lay doon ci ñun rek wërgu yaram gu bari la ñuy xel di am. cere euh, ni bomb rawatina ci jamonoy tam xarit euh, dañuy faral di gis suñu mbokk jigéen ñi ku ci nekk ak ni ngay bombee ñi dañuy def beurre ñi def fromage def ñebbe ñu jël lu nekk di ko ci def yow ban gis-gis nga am ci loolu est jotul tey ji ñu wàññi yi nga xamante ni loolu la ñuy bombee bu baax dañ ko war a wàññi bu baax gis nga cere neex na neexaay boo xam ne waat naa ci yàlla boo doon jël ndox rek siim ko ci cere bi ak xorom kese mën nga ci lekk ba suur ci man li ma gis kon yooyu góor yooyu ñu ciy def ak diw ñor yooyu yooyu jarul ci cere yooyu day yàq cere gis nga bóor diw ñor saa yoo defee ci cere cere bi bu fanaanee rek day day ritax ban kenn du ko mën a lekk waaye boo defee sa cere ba mu suus nga def sa laala ba mu nee mën nga tonn ci diw bi tuuti sax nga bomb ko day wow koŋ mën na am juróomi fan cere bi du def dara nañu wàññi yu jamono bii ñu nekk kenn lekkatul lu neen ku ko daan lekk wàññi nga ko feebar yi bari na lépp jàngoro yépp a ngi ci biir nit ñi kon nag nañu xool li ñuy lekk ñu xool li ñuy dugal suñu biir bu baax a baax waaw. suukar bi moom yoru ko suukar bi yoru ko cere bomba amul benn njariñ kii laalo la laaj ñeex mi soxlul muy far na sirig yaa ngi may dégg soo ko defee si cere ji da kay naan xam nga nooy na. sa estomac mën ka attan waaye bomba ka bu mu fees dell ak dëwlin addinay resin yi tàndarma ju lu xaw ma luñ ci jublu daal waaye ñun man da du ko def man man mi mag ñi yar man defuma ko man boo ñëwee sama kër su ma la siimalee nga ni maa fi dàq cere xam nga lan moo ko waral man defuma dëwlin si cere defuma resin ci cere defuma tàndarma si cere waaye daal yàpp yi moom dinaa ko ci def su ma su gerte rax bu mu set tëmbal si biir bu nooyee day mel na gajaange ñun cosaan yooyu la ñu xam. bu événement bi jub see ku ci nekk da naan cere cere topp riir mi mais ñu ci bëri xamuñu lan mooy njëriñu euh, cere ci tamxarit est-ce que nga ma ko waaw njëriñu cere ci tamxarit mooy li ñu gën a bëgg ndax cere moo baaxoo tamxarit njëriñu cere tamxarit mooy suñu cosaan mooy li ma la wax rek mooy suñu cosaan waaw moom la war a reer waaw ci tamxarit ndax ci suñu maam yi ba tey moom lañuy aadawoo. kon bu tamxarit ñëwee moom dañoo war a defar suñu cere yu baax defar ci ba mu baax ñu ñu reer ci ñun ñëpp jox ci séddale ci waaw loolu moo indi njëriñu tamxaraat njariñu cere fekkee déwén. waaye xam nga léegi jot moo amatul boo yoree njaboot gi bëgg def togg gi ak lépp dafay xaw a métti il faut nag nga dal di sa cere boo dal di tey tey ba mu sus def sa laalo dal di togg jox njaboot gi. waaw dundee cere ju wow ji ak jamonoy nawet est-ce que yomb na ci weer bi nga weer ba noppi mu xiin asamaan si taw yéen loo yombul noonu nag yombul noonu yombul noonu xam nga rek léeg nga taw nga defar mu xiin taw wala dara yombul weer bi yombul mais dañuy góorgóorlu rek ba weer waaw 700 lay jar waaw. ah xaw na yéeg tuuti rek ndax xam nga dugub nawet day seer mhm. waaw looloo tax. njariñu tere tere si tamxarit bégal sa njaboot rek bégal sa njaboot la waaye bul depaas yaa ngi may dégg taaja bon yi ñuy def dafa araam góor sol yëre jigéen jigéen sol yére góor loolu fan nañ ko teg te lislaam ni la na moytu yow nga soobu soo baax naan damay taaja bon foo ko teg tamxarit loo war a def tudda yàlla jàngal alxuraan ndax bis bu metti la woon si Ousseynou Karbala te Ousseynou mooy sëtu yonent bi sallallahu sallam kon bu nu dee baaxantal day ne bégal leen njaboot gi si biir kër gi waaye bu leen dépassé xale yi sol seen i yére jaxasoo dem si kër jàmbur yi di til til di ubbeeg di def yi kenn xamul loolu yoru ko. waaw maanaam nag jeeg moom dafa war a jéem a di mooñ di jàng cere di defar waaw loolu moom ci la bokk ndax du ñëpp a mën a cere moom ba mu baax waaye nag dangay jéem. loolu it ci yarin wi la rek mag ñi leen di kii ñoo leen war di jàngal ay mooñ ci ba ngeen di ndaw nga tay sa cere defaral sa bopp mu baax ci la gën a sakkan ah, ah, léeg-léeg nag nga tase ci njëndam cere njënd moo xam ne mii cere jooju moom dina baax dina normal waaye nag du ñëpp yem ba tey waaw du ñëpp yem xam naa ne moom man moom am naa yaakaar sama cere jii moom ku ko jënd di jeeg boo ko toggee doo ko rëccu moom doo ko rëccu waaw <laughs> jërëjëf jërëjëf ñaar moo am laalo mbib bi nga xam ne tubaab bee ko indi ak ñax bi nga xam ni ñun séeréer yeeg tukulóor yi ñoo ko moom muy morola man laala ñax bi may jaay nii ci sa taatu guy bi sama papa moo ma ko may bu demee ba ndox mi wàcc damay yónnee xaalis ñu goral ma ko ma sama jabaru mag defaral ma ko ba mu baax yóbbul ma machine bi walal ma ko indi fii ku ci bëgg ma peesel la baana baane ñiy jaay may tibba di teg fii ku ci soxla moom laa lay jaay laa la ñax boobu moo gën a baax ci yaram moo gën a faj moo mbib bi bokkeewuñu sax waaw xaajewuñu sax dañ togg togg lu neex rek defar ba mu baax xam nga cere moom loo ci def rek mu neex buñ toggee def ba mu baax a ah, daal di togg rek jox njaboot gi ñëpp lekk noo gisee bomb gu bari gi bomb goo xamante ni dinañ ci def petit def ci ñebbe euh, def ci def ci raisin lu nekk ñu def ko ci yow noo gisee ah loolu moom baaxul ndax bomb moom dangay ngay bomb lu yem rek ndax feebar yi bari na tension yi diabète yi bari na dangay toog lu yem def lu yem bomb lu yem rek waaw bomb moom jarul muy niin jarul muy bari soo bombee def lu yem rek baax na comme ça dina am ànd ak wér-gu-yaram waaw ah kontaan naa seen télé bi yàlla na yàlla siwal ba mu siiw àdduna bi yëpp di leen dégg ci mag Seydina Mohamed da ngeen jël naanaa bii nag infusé ko di ko jox mag ñi ndax dafa baax te day reesal waaye toggulu niin mbatt jox ko mag ci benn heure bi mu lekk war a tëdd pare am ay ay ay effet ñu naan togg gi la togg gi la fekk yaa teelul taal teeloo yàq ñun dañoo xamoon timis fu ñu ko jullee rek bool bi tegu na ñu reer taxaw ñaan dëpp bool bi julli daw taaja ni balaa 10 heures ñëpp daw dëpp waa yor sab reer ba 10 heures jot wala 11 heures nga di ko jox mag mu di ko reer tëdd ba guddi dara am di yëngu ñu naan togg gi la wala masi bi la wala dara la nañ farluwaat nanu jéem a farluwaat merci tamit ma di leen sant di leen gërëm